مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا jaamu yàlla moom aajowul ndaw aajowul mag waaw aajowul mag aajowul xale bàmmeel comme ni ma la ko xat na xataay boo xam ne loolu liggéeyul doo ko fekk waaw loolu liggéeyul doo ko fekk du yaay moo la koy liggéeyal du papa du mag du rax yow yaa koy ñafeel sa bopp jaayantel ko sa bopp ngir boo deewee fekk ko fa waaw yàlla ñu yàlla musal ci bàmmeel bu xat yàlla ñu yàlla musal ci lu bon ci doole sëriñ bi. kon moom su may julli wax dëgg yàlla moom su ma defee faatiye ba mu jeex dama siy teg bisimilah rahmaani rahiim ku la laa waxat allahu samat lam yulit lam yoolal lam yukul lam teg ci alhamdulilah bi euh, mu yàlla dafa dogal loolu si weeru koor gi bi mu jàllee. Fama Diagne mu bëgg nga déglu ma ne nii bu baax. nit buy fen wala buy wax lu dëgg nii du jàpp wax ji te li ma la wax nii xoolal duma ma fàtte de léegi léegi ci biir wax ji ni maa la koy wax bi koor jeexee ñu def signature bi mercredi jeudi vendredi samedi nekk làmb ji fii terrain Waldaan du ma ko fàtte après nag kiñ jàpp moom bi muy dem di def plainte bi xamul kan moo jam rakkam mu xamu ko xamul ñan la. après bi mu demee moom comme man maa gën a siiw ci nekkoon foofu si làmb ji te peut-être yàlla moom moo xam ko quoi dëgg rek moo neex yàlla suñu borom sam booy ñoom ñoo nekkoon si làmb ji ñoom ñoo doon bëri léegi bi mu demee def pelante moom pour mu mën a xam kan moo jam rakam man mu dugal ma ci cool yi moom mu ne guru bu ñoom papa booy jënne ñoo jam sama rakk parce que loolu tey sama papa da wax wax si wax si wax si wax si ba koy dee am ci mitit mititu xol lépp rek moom la woon tey tey suñ ma yóbboo kaso rek de moom moo tax waaye lu may wax rek mu julli laata si weeru ko lañ nekk